ok sénégalais aussi tamit dañu am tendance boo xam ne nii ci réew mi euh, soo soo soo soo saaga kilifa rek wala nga pas saaga sax maa yenn termes yi nga ko yëkkati ci gone di ko wax mag rek dañ naan xale yi dañu yaradiku tey gis nañ ci ku ci mel ni Mimi Touré ñoo bokk Kaolack man dama leen mës a estimer ndax seen i engagement mais cette fois ci moom dañu passé à côté yow lan ngay dox loolu caat wax ak nit personnellement parce que du moom rek moo ñu attaqué y a y a d'autres je pense que c'est qui passait à côté mooy président bi def ay promesses te teniru ko kooku moo passé à côté échec guvernement bi total ñoom ñëpp ñu am ci ay responsabilités je pense que foofu la échec bi nekk après ñun kër gi aussi dans notre philosophie du ay nit la ñuy taxaw di tontonte la comme on a l'habitude de le dire booy wax ak patron doo faale planton tu vois ce que je donc euh, li ñuy wax wax nañ ko ñi ñu war a waxal ci loolu noonu wax nañ leen dégg nañ ñu li am solo ba am solo mooy quand ton peuple te demande des comptes boo amul argument yoo leen rendre compte ci ay xaste ngeen mu jóg ay yaruwu leen ak ay nangam sangam ci ça la vérité la triste vérité c'est que quand les gens te posent des questions quand les gens t'apportent des des des questions yu toll ni que ana li ñu digoon ana li ñu waxoon. ana njàng mi foo ko réglé ana paj mi fu mu kii ana employé yi nga waxoon ah ana lii ana laa nga naan leen da ngeen da ngeen a réew da ngeen a nangam da ngeen sàngam kooku parce que amoo réponse tout simplement et tout bonnement donc ils n'ont pas de réponse parce qu'ils n'ont pas de bilan bu ñu amoon bilan takk nañu rajo yi bu yàgg la preuve ils ont seen booy yooyu noonu répondeur automatique yi nekk ci internet bi di saaga nit ñi xas parce que amuñu leen lañu def ban bilan lañ mën défendre ñoom waaw ah, mais fekk nañ fi ay projet yoo xamante ne yu Abdoulaye Wade je voulais juste ajouter une chose parce que nañu bàyyi euh, gis nga la sénégalais bu bu bu bu bu demee ba xam ni il a tort rek il essaye de jouer le victime day victimiser wu pour ñu yërëm ko pour ñu ne woy wax na dëgg quoi waruñ ko wax mais ñooñu naan waruñu ko wax aujourd'hui en 2011 il était ils étaient très d'accord avec nous 2011 2012 yan yan musique lañ doon battre campagne fii au Sénégal góor gi dee na góor gi na dem ay euh, yaa ko fi diggee woon doo ko fi kii ah boobu jaaruñ on n'avait pas passé à côté parce que ça faisait leurs affaires mais aujourd'hui ça ne fait pas leurs affaires on euh, dañu passé à côté il faut arrêter d'être hypocrite et de leurrer de continuer de leurrer et de surfer sur l'ignorance des Sénégalais encore ils sont tous hypocrites